woo ma rek ma kii moom sama doom bi moom woo na ma kaay Ousmane Sarr dee na dafa métti muy yaakaaru yaayam di taawu yaayam nag sant yàlla. bu da doon dimbali nit ba bakkanam si jiyaat la amee parce que kuy dem xare xamoo ndax di nga dellu te xare bu ñëpp jéggi la moom mu ñëw dugg ci waaw sant yàlla. doom taawu yaayam. ñaari doomi jigéen la am kenn gi amagul at sax fan yi la war a am at waaye sant yàlla daal. tey lan ngay fàttaliku ci moom. mais si moom mooy bi mu ànd ak sama doom yi oto fël fël ko sama taaw bu mag bi sama doom bu mag bi di ma ko nëbb ba ku ndaw ki moo ma ko wax ma duggee fekk ko fi ak maamam mu koy nettoyé ma ne bébé lii lan la Ousmane dama ku la ko wax moom xale bi mu ne ma ku la wax ma ko vieux Fabre moo ko wax. maam ji ne ma waru la ko woon a wax ndax xam naa ne yëguloo ko muy diire ko ak tànk bi di duggaat ci kër gi chaque jour te munoon nañ ne mook ñi ñoo àndoon waaye bu dul lool de aw ma leneen lu may fàttaliku ci Ousmane Sarr diiru 37 ans wala 38 ans aw ma leneen lu may fàttaliku ci usmaan saar lu ñaaw yaay yaay rek yaay yaay rek liggéeyi wàcc dugg na sangu solu dem na ci jabaram wala ci ay moromam ñëpp la respecté doonoon yaakaar yaayam waaye sant daal soxna si doy na. fi mu nekk naqar la ñu am naqar lañu am de mais gisuñu ci moom dara dara dara lu ñu metti dem gi mu dem nag metti nañu lool mais nag yàlla moo soxla bu yàlla soxlaa dañuy bàyyi yàlla jël ndax yàlla tamit bëggul lu bon yàlla lu baax la bëgg yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare ajjana yàlla na dee di noflaayam yàlla na xippee ci ajjanay si ñaar ñi mu fi bàyyi yal na si yàlla teg loxo te ñu seeni waajur ay fan. saar daal li ñu mën a wax ci moom daal mooy baax na yaru na dal na am na sutura am na teraanga am na teggin yërëm na yaayam bëggoon na yaayam bëgg ay rakkam. kenn musu koo ak ay rakkam kenn musu koo àtte ak yaayam kenn musu koo àtte ay ndijaayam ak i umpaañam ba ci mbedd mi mbedd mi kenn xamalu ko dara kenn xamalu ko dara dara dara dara kenn mësu ko fi àtte ba mu juddoo nag ba léegi ba mu juddoo ba léegi tey la ñuy doog am na mettit bi bi mu dëddoo nii mais mësu démb xale yu góor yi xale yu góor yi ñoo xam ne bokk ñoo ñoom dara fi lañ doon bërëgu naan tey dañuy dañuy dañuy dee ànd ak moom wallaahi azim dañuy dee ànd ak saar saar duñu fi bàyyi te dëkkuñu fi bokk ñoo moom dara mais comportement bi mu nekkeek ñoom moo tax ñu buggoon a dem ànd ak Sarr mais nag nañ ko muñ loo yàlla rek nañ ko muñ loo yàlla yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaar mais amuñu dara dara lu ñu metti ci moom teere la ñu doog am lu ñu metti ci moom musuñu koo am musuñu koo am wallaahi azim musuñu koo am ñu ngi koy doog am tey ñu ngi koy doog a am tey ñu koy doog a am tey ñu ngi koy doog am tey sam bàjjen nag xam naa ne moom du wax ndax munul munul munul sam bàjjen du wax de ndax munul ay rakkam yi mu bokkal benn du duñu wax ndax mënuñu ñun dañuy jéem sax waaye mënuñu tax du ngeen dem ba du ngeen jógeen fi ñëw bëgg xam dara ci moom te duñ kenn du mën a wax ci moom dara il faut ñu kenn dina wax ñu ngi koy ñaanal yàlla nag daal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla dee di noflaaya lool rek la ñu mën a wax daal ci saar lool rek la ñu mën a wax ci Sarr. Ousmane Sarr sa xarit la woon. dañ ñuy nduróole sax dañ ne woon mag ay euh, frère la ñu ak moom démb démb le matin bi loolu di xew mi ngi ma romb naan ma bëggoon naa la woo sànq ma ne ko juste may gaare oto bi mu ne ma xaar ma ñu dem ma ne ko déedéet du mu la xaar damay dem damay dem defari kilimu oto bi mu ne ma ah, doo doo bëgg mukk ma ci oto bi ma ko a ah, baax na xaar ma rek yow man maa ngi ñëw su ma ñëwee jël la ñu dem ndaxte deewam la doon jël si te ko yóbboon safaan mën naam waaye eh, yàlla moo dogalee noonu muy sama nit ñu sekk na ne verre yi mu mujjee sol maa ko jox Lacoste bi mu bi ma sol démb moom ci boppam moo ma ko jëndal ñu sekk lu ne suñu jabar yi xamante. jotoon naam am jabar ay doom. am na soxna am na ñaari doom yu jigéen. génn àddunaam naka nga ko yëgee. man bi affaire bi affaire démb fekk na moom ma dem euh, doon defari kilimu oto bi sama oto sœur bi ñu woo ma sama benn xarit bu dëkk Fass woo ma téléphone ne ma man kën ñoom yuuda màggee presque parce que fa laa ba ni ma màggee bi ma demee ñu ma téléphone ne ma kër ñoom am na lu fa xew sa kër ga lu fa xew mel ni dal moo daanu ma bàyyi li may def daw ñëw si bi ma bàyyee li may def daw ñëw si ma ñëw ma laajte ñu ne ma mama roxee xale bu jigéen bi sama jarbaat la depuis ba muy xale maa ko yar yaayam du togg te ñëw euh, du yàq te ñëwuma xale bu jigéen bi daraan na yaayam man Ahmed Diallo laa bëgg ba yàlla def li gën bi mu bi may dégg dese bi il faisait parce que man lañ ma wax dañ maa nëbb nëbb gi mooy dama woo soxnaam téléphone maam Manaar ma ne ko maam ana mu ne ma mi ngi nii ñu ngi génn nii hôpital ma ne ah, alhamdulilah man loxo bu damm laa jàppoon ndaxte xam na ni ma mel ak moo tax nangu ma woon ni wax ni Ousmane génn na àdduna par la suite laa ànd ak benn booy mu ne ma am na keneen ku dee ma ne ko kan mu génnee statut bi fi ma toog muy Ousmane Sarr ma toog. affaire bi def ma équation parce que mënu ma wax ak Ousmane démb ñu waxtaan maak moom ndaxte mi ngi ma doon tàggu lii yàlla rek ko ko na ma émotion daal. alors euh, lan moo la marqué ci dundam bi ngeen nekk loo xamante ne amaana sa xel saa yu demee si moom doo ko fàtte. Ousmane nit social la xam nga social. mooy koo xamante ni moo mooy ki nga xamante ni euh, euh, moom soxlaam. soxlawu soxla doomu aadama moo ko soxla soxla doomu aadama moo ko soxal Ousmane mën na di nekk léegi di lijjanti problème moom di lijjanti problème bàyyi problème am gis xale bu ndaw dara dal ko mu jël ko yóbbu ko hôpital alalam du ko booleeg doomu aadama Ousmane yaru na bëgg na boppam jullite na mënuñu wax lu bari maanaam émotion daf ñëw jàpp trop yaay booy métti trop. lan nga ñu mën a euh, wax ci Ousmane Sarr mi génn àdduna tey. ah de li ma mën a wax ci moom bëri na mais tey naqar lañu ñu amee big ba léegi naqar lañu ñu amee ndaxte moom ba mu juddoo ñun ñoo ko yor max yaayam ñoo doon ànd xale ba ni ñu nekkee mag ku si nekk am doom ma am wasin doom bu jigéen mu jël ko def ko ndayoo ko mu am doom ju góor muy usmaan mii mu ne ma yow la ma jël Ousmane ñu jël usmaan téye mu ñuy saay bu xëyee suba di ñu nuyu amax ñépp jàmm ak salaam génn fii dem yoonam bu jël ñaari doomam demleen leen nuyu seen maam baax bay bëgg dee Ousmane Medina waa Medina ñoom ñoo ñàkk de ñu ñàkk nañ de mais waa Medina ñoo ko ñàkk ndaxte sama doom bu jigéen fa lay sëy sama sët xale bu ndaw la waaye ñoom Ousmane saar lay àndal ba ma naan kaan yow Elie yow ngay àndax ay mag yi mu ne ñii samay morom lañ ñoom laay àndal ñooy samay moroom démb xale bi bi mu ñëwee naan man maam man gëw ma ne lii am na Ousmane nan noppaliku na ma ne ko yow looy wax nii mu ne ma usmaan noppaliku na ñun mu nii ma ne ko yàlla yàlla moo ñëw ak ay mbiram dee nag dee goo xamee ne yàlla suñu borom bi moom la soxla ndax ndaxte jixaat la deme di dimmali nit ba yàlla suñu borom bi jël ko kon dañ koy ñaanal suñu borom fa mu jëm yàlla na ko gënal fa mu jóge si barki Seydina Mohamed njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ko suñu borom bi teg loxo. yàlla nag mooy def li gën rek ndaxte yàllaa ne woon ne moom fa mu toogoon noonu ñu bëri ñu nga fa woon waaye moom moo rocceeku dem dem dellu si demaat muy dee kon nag kenn mënul du wax dara dañ koy sante suñu borom bi te xam ne yàlla mooy def li gën yàlla mi am yàlla na ko yàlla defal jàmm fa mu jëm yàlla na ko fa gën mu jóge ak képp ku fa nekkoon te yàlla suñu borom bi jël la yal na nga xippee ajjana ca ajjanay fil daw sin ya wasalaam jërëjëf. Mouhamed yow démb bi batiment bi di daanu médina fala la fekk est-ce que mën nga dellu si ci mbir mi nu mu demee. oui exact ñun bâtiment ba muy daanu exactement ñoo ñëw ne waa lu xew fii ñun pour ñun ay lakk la wala ay xeex affaire yooyu noonu ba ñu doxee ñëw dugg ci kër gi gis euh, sunu grand bu baax Ousmane muy génn ak sunu grand yi ak loxoom. ma ne waa mais lii nu mën a demee nii gis ay xeer loolu jaaxal ma ma ñëw rek romb ba ma rombee ñëw taxaw gis gars yi di yuuxu yi kërëb kërëb ma perturbé xaw ma nu may def waaye bëgg a daw génn mënu ma génn taxaw dimbali leen te yàlla rek tax te xam ne ñun amuñu lu dul ñoom quoi te ñu la ñoom yàgg nañ dañuy toog léegi léegi ñu koy suba tàggee la ndax dafa garaaw daal dafa garaaw. kon yow bi ngay ñëw fekkul usmaan génn àdduna. déedéet boobu mi ngi naaj mi ngi loxoom ñu koy dugal ci oto beex yooyu noonu boobu normal moom alhamdulilah moom xëy na dafa di jàmbaar ak góor yàlla rek tax mu yegg ba fii laay walaay taala. kon donc yoon euh, bu ñu déggee nga wax moom euh, mbagg bi moom moo dam mais bu ñu ko yóbbee peut gisoon ni bu ñu gaawoon ci sauvetage beeg yooyu mën na see mën na see jaaree mucc est-ce que gisoon si côté hôpital dafa xaw côté hôpital xaw na yéex ñun dunduñu loolu ñun ñun dañu di ay murit ñun dañuy dañu am man de ci suñu grand lañ ko tàmmee te dañuy toog di wax àdduna dañuy wax loo xamante ne même buñ ko gisul tey suba dañ koy gis. bilaay walaay talaay ndax ñoom ay mag yi am respect seen i jarbaat seen i rakk lañ léegi CTO lañ ko yóbbuwoon ba sama grand yi ñooy commencé di aalu affaire yooyu noonu ba gars yi kii kër kër ay sama grand bay Mbaye ay Xaadim ay Pamoussa ñooñu dañuy daw ñëw bëgg tekki ceinture am affaire yooyu noonu di ko dimbali ko wax bañ ko ne yëngalal sa tànk mi ngi yëngal tànk yeex yooyu noonu affaire yooyu waaw normal mais ba mu demee ba si guddi gi xam naa lu mu doon góor yàlla rek doon jàmbaar moo ko andi ba fii tey moo ko andi ba ci guddi gi mais bu doon keneen la tey waxatuñ ko ndax Sénégal temps yi Sénégal liggéeyatuñu liggéeyuñu suñu benn mbokk taal bi li moo ko rey si autoroute bi def na choc depuis 9 heures ñu teg ko ba 17 heures ambulance ñëwul tey ambulance tey avant ñu leen di woo sam benn grand moo daw ba foofu jëli leen loolu du yoon jëli leen ba foofu ñu doog a mën a ñëw tey bu yàlla defoon ñu ñëw bu yàgg xëy na loolu yëpp mënoon nañ fa bu jot naa dal xale yi ba pare dalagul mag ñi mag ñi ñoo doon bëgg ñoo sauver xale yi ba xale yi génnee ñoom dañoo jaaxle te ne waa mais doomu diw affaire yooyu noonu dañ daw comprendre te ñoom ba lañ yóbbee Abass Ndao ñu urgence direct demee urgence xool leen affaire yooyu noonu dugal leen su guddi gi ma ñëw ñu ne xale yi dañoo gaañu ma ne non non xale yi ñu ñu naa ba hôpital fekk leen ku si ne sa yaay jox la téléphone ngay foo. wala nekk xale ndaw lañ ay ñaata âge à peu ay deux ans trois ans xale yu ndaw lañ xamuñu dara waaw. Ah, fii ci Gueule Tapée la dëgg seen xarit la woon. waaw suñu xarit la woon moom gaañ bu baax wër na yàlla dafa ñëw suñu ko nekk bokku amul xale amul mag ñëpp la doon nekkal te donte moom moo ñu mag fuuf mais xoolal dafa wàccee boppam chaque jour si ñun lay toog di ñu lu ne. billaay mu kay def si ñun nii toog nii sax dara romb mu jëndal boo yëpp ndax baax quoi. moom fan la dëkkoon fii la famem dëkk papaam ak yaayam. waaw famem papaam ak yaayam fii la. metti nañ trop mais ñi xam ne ndogalu yàlla la rek lu yàlla dogal moom dañ koy nangu rek ñu xam ne moom lu xëy na lu gën si moom la tamit di lu gën si ñun tamit. mais muy am fi mu la fekk. ah muy am man maa ngi jàdd noonu di am fu ma doon dem mais maa ngi saa dem ñëw rek dégg saar saar saar a affaire bi nag. mooy loolu. kañ nga ko mujjee gis. Ah, man kañ démb. démb sa matin ay 11h waaw démb rek gis naa wax ma xay tàllal loxo di ko tooñ. billaahi démb rek.